mbokkee xarit yi safoo di seetaan Leral TV Leral point net ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccu waaye di ñëpp di ziar kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal ñu si opitoo uh, saafara seen tawat bañ dellu seen njaboot di ñaanal si prison yàlla leen fa yàlla suñu borom génne ba ñu delluwaat seen njaboot ñu ngi leen di ziar di leen baal àq di leen baal àq di ziar tonton Ngaari bi nga xamante ni tey moo toog ci plateau bi tey mu absenté am empêchement ñu ngi koy di ko ziar di ziar Babacar di ziar maam Marème di ko déwénal di ko baal àq di ko baal àq aussi di ko wax namoon nañ ko tey moo nekk suñu invité bu jongoma bi yéen ngi waa seen émission aada pencum aada ak cosaan di fas yéene waxtaane day thème bu am solo moo nekk li ci biir kër yi maam Marème nuyu naa la. waa Ndeya maa ngi lay fay bu baax a baax gis nga maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di wax asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa tànk di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu ñi nga xamante ne ñoo tëdd si lalu hôpital di ñaan yal na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu way daw lay yal na yàlla xaar leen àjjana te ay xol suuf seen kaw di nuyu kilifa diine kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn di ziyaare fi nga xam ne moo di Bassirou Diomaye fay suñu président di ko ñaanal yàlla yàggal ko fii yàlla na jig Sénégal mais yàlla na ko Sénégal jig yéen bi yàlla na oyof lool yàlla na Sénégal naataange lépp luñ fi naloon rek yàlla na ko yeggale jàmm ju bëri sax fi ci barke Seydina Mohamed ñuy ziyaare ñëpp di baalu àq ñëpp ku ci nekk fa nga nekk rek fekk nañ la fa baalu la àq baal la àq di wax yàlla nañ yàlla may ñu fekkee ay koor yu baree bare bari ay korite yu baree baree bari ci barke Seydina Muhammad defe naa ne avant koor ba léegi si defuñu woon plateau ñu ngi toogoon di noppaliku mais ñëwaat nañ fii nga xam ne mooy leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan di am mbégte kontaan di nuyu fi nga xamante ne mooy kër gi ñu nekk muy Leral TV li ko commencé ci directeur bi ba ki fi gën a nekk xale ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmb di ko sàkku moom bu baax di nuyu Babacar mi ne ci technique bi jóoba jubba moom na dafa lekk ginaari lekk suukaru koor bi lekk ndéwénal bi joxuñu ci dara ñu laa ñu ngi nuyu dara nday yaa ah, lépp la lekk di nuyu ah, tonton ngaari ah, <laughs> moom tamit gis nga di nuyu tonton ngaari moom tamit di ko ñaanal jàmm bu baax ko wax ne ko nam naa la gën ñu ñoo gisee waaye kenn du nday yaa xale bu yar bu baax bu teey bi maa koy nuyu moom tamit di ko ñaanal jàmm bu baax a di am dëgg kontaan ci waat fii nga xam ne mooy Leral TV Leral point net rafet lu émission bii nga xam ne nii moom la ñuy def muy dimanche bu jot du kenn nag koo xamante ne moo ñu dooleel di ñu jàppale mooy ñi nga xam ne ñoo toog di ñu seetaan kenn du yéen ñu leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp yi dalal leen may leen xéwal gu bëri ba ngeen mën di toog li jàkkaarloo ñu saa su nekk di ñu seetaan Ndeya delloo naa la nuyoo bi. waaw maama kontaan nañ ci yow nuyoo bi am na solo lool ñi wax amee ci ñaani comme ni ko waxee rek.

amin amin yàlla yàlla def jàmm def ko ci Sénégal di ñaanal góor ñëpp jàmm gis nga ndeyaa Sénégal jàmm rek moo fi xaj yàlla fi yàlla sotti jàmm yu bari mm. ndaxte li tax jàmm war fee am mooy xale yi taalibe dañoo ne ci mbedd bi ñi nga xam ne yàlla dafa yóbbu seen xel ñu nekk ci mbedd bi am ci borom kër yoo xam ne xamuñu dépense lu fu muy jubee ñu ngi denc compte banque yi suñu soxlaa fi ñu toog la ñuy toog ñu fekk si leen jox leen am ci ñoo xamante ne ni tey balaa ñuy dépense dañuy jóg dem uti ji ko kon moo tax Sénégal jàmm rek moo fi war a xaj te yàlla fi yàlla dafi jàmm dala bu neex kenn du mën def benn activité. dañu mhm. fi yàlla sotti xéewal saawaan baawaan yokk jàmm ji. may ñu ak wér bàyyi ñoom suñu cër suñuy xel suñu lépp. maam Marème tey ñu fas yéene waxtaanee te mu am solo muy li ci biir kër yi. Mhm. lan la ñu mën a wax ci ci biir kër yi lan moo nekk ci biir kër yi maam Marème. Mhm. waa ndeyaa boo waxee li ci biir kër yi nag moom dafa ëmb lépp. kër yi bi fi nekk doy na waar. doy na waa kër yaa ngi mel ne poobar bu mokk ci côté bépp <laughs> ñenn ñi ci jéeg ji sëy ñenn ñi ci tontoo saay saay yi nekk ci kër gi ñenn ñi ci jigéen ñi yàq seen morom bi ak góor ñi abandonné seen jabar yi dem taxawaalu ji ak yaay yi nga xam ne ñu ngi jëkkër kër gi taluñu dara lu dul lan topp xew yi di wër rek am na ci yaay yoo xam ne ne bu ñu xëyee ñu ngi toog yor seeni kurus di ñaanal seeni jaboot rek yàlla sàmm leen kon defe naa ne kër li ko ëmb moo bëri xale yu yaru yaa ngi fi xale yu yara yaradiku yaa ngi fi lu ne ngi ci biir kër gi ci ngay defaroo fi nga yàqoo boo defaroowul ci biir kër gi nag mbedd mi dalay daal di defar kon defe naa ne ku ci nekk booy jur sa doom mën a jur mën a yore ko dàq euh, booy jur di yafal da ngay boole ko di yar mais di yafal te yaroo amul sens day daal di nekk loo xam ne alalu borom barke lay doon day jariñ ci mbedd mi rek du jariñ boppam la yaa waaw maama de kàddu bi am na solo nee na boo juree da ngay yar pour yefal da ngay yar parce que yar moo am solo mhm. ndax ki nga yefal moo toog ci biir kër gi rek yaroo ko xamul xamul dara bu génnee mën na def tajaange mhm. mais ki nga yefal ba pare di ko yar aussi bu génnee dina xam nan lay comporté woo ci biir kër gi woo mhm. jigéen ñi nga xamante ne dañuy fekk kër ne jàmm nekk fa ñu ñëw sëy si si kër rek tas kër gi jaxase yaay ak doom fekk seen goro jaxase yaay ak doom jaxate jaxase doom ak sëram boobu seen borom kër ak seen rak xuloo bi dugg fii ñuy ru dugg fii di jaxase fii di ruub di ruumandaat fii di duggal di génn lan nga jigéen ñi nga xamante ni ñoom maanaam fitna rek moo a jóg. Euh, ndeyaa jigéen ñooñu defe naa ne dañoo xamul rek ndax gis nga am na loo xamante ne nii nee nañ keppaaru fitna ku koy jëmbat wallahi dangaa xamul la mën a jur gis nga jigéen bu ñëw ci kër fekk yaay ak doom nga tasaare leen jàppal ne loolu danga kaa leble rek lu mu yàgg-yàgg dañ la koy fay soo ñëwee ci kër fekk fa jàmm mottali ko soo fa fekkul jàmm jëlal sa lamset jël sa puso lu bon nga dagg sànni lu baax nga jël sa puso nga taqale jigéen mooy defar kër dara gënte ñaaw fekk jigéen sëy ci këram ëmb doomam juróom-ñeenti weer jur ko sonn ca kooko gis la bëgg la takk la ñëw ci kër gi nga fitnaal ko ba tàqale ko yaayam dafay am bari na fi am na jigéen ñoo xam ne keroog ba ñu leen muuree ñu wàcc ci kër gi sëy si ca la yaay gëj a xam ci doomam lu bari mu féetewoo doom jabaram rek bàyyi yaayam yaayam di xalaat di sonn di misère gis nga waajooju su génnee lu mu laal du dem dara dañ maa liggéey sama dara doxatul sama jabar daa ay gaaf fekk amoo jabar ay gaaf la jabar ju nga am ndax gis nga àdduna mbooloo mooy doole te tas yaakaar rek sa yaakaar tas ndax tas sa yaakaar waajur sa yaakaar day tas. mooy sax mhm. góor ñoo xamante ni dañuy topp seen influence jabar comme seen jabar ni muy sëggee ci seen nopp rek. Mhm. ba seen seen seen seen waajur. Mhm. génn dem yooyu ji mais bu ñu génnee yàlla moo leen di nattu. ba la ñu bëggoon duñ ko am dañuy obligé waat mujj dellu si waat seen yaay. te fekk na bañ fay génn neexul woon génn bu ñaaw la woon ndax seen jabar. waa mooy li ma la wax sànq rek mooy ñàkk xam gi rek ndaxte defe naa ne jabar waru laa jaral sa yaay ndax yaay dafa nekk koo xam ne kenn la àdduna tey euh, góor mun na ne man ñaar ñoo ma bëgg muy sa doom bi nga jur ak sa yaay mais gis nga jabar soo deewee mun naa utiwaat beneen jëkkër soo feebaroon tey wala nga tëdd prison am na fi góor ñoo xam ne si prison yi la leen seen jabar fekk ñaan leen baat am na si ñoo xam ne dañoo feebar tëdd seen tànk yi dagg wala ñu am loo xam ne laago ñu taw ñu xam ne kii mënatu la dem mm. sa soxna fekk la fa ñaan la baat mais sa yaay du ñëw mukk na la juratuma la mm. sa doom du ñëw ne juratoo ma kon jabar ak ci lu mu mën a doon moo xam na rafet nu mu mën a mel tout temps del bàyyi sa xel ne man mii sama yaay ji avant sama soxna sama yaay la te jigéen nee nañ soppal te bul wóolu am na nag ñu baax am na ñu baax ñu gën ñoo xam ne problème boo mën a am ñu ngi sa wet toog lu ñu daw du ñu tàyyi kër ba nga gënee mën a am problème jour boobu la ñuy gën a mën a ko ñëw ànd ak yow muñal la mais am na si ñoo xam ne sëy bi intérêt moo ko lal jigéen ñi nga xam ne dañuy ñëw fekk la ak sa yaay ñu tàqale la ñoom li ñuy bëgg mooy seen liberté ak moom seen bopp mm-hmm. ndax boo nekkee si kër famille nga war a xëy def lii def laa def laa nga ne man sama teen bii dama koo bëgg xëy fii di def lii di def laa xaaral ma jéem a fexe sol ci sama nopp jëkkër loo xam ne day génn uti appartement ma nekk faa moom mu utal ma jànq su ma xëyee defaru ba jekk toog ah waa tamit nag nee nañ nag ku ñulub sa jëkkër da ngay daal di yàq sa doom ndey waaw ba tey maam Marème li nga wax am na solo ndax yaakaar naa ni loolu du fu jigéen mhm. yaakaar naa balaa ngay am ndam balaa muy neex fa mu metti mhm. mënoo sëy lu la neex rek am am am lu la neex wala nga jur fa lu la neex loolu mënul nekk mhm. kon sunu mbokku jigéen yi xam naa bu ñu déggee sax ñi danañ ñu ŋàññ dara ñii dañoo daa fekk wala ñu seytaane mais du loolu dañuy dañuy dolliwaat rek di leen dolliwaat rek di leen gën a ñaax pour ngeen gën a ba seen xel te xam ni sa borom kër boo ko fekkee yaayam da mën a war a gën a mën a taxal seen diggante ndax yaay bu fekkente ni doomam dem na bëgg ni mu bëggal mu mu ànd ci bëgg googu mu ko bëgg bañ nangu ñu takko kon yow boo ñëwee rek li la war mooy nga topp sa goro mais sa yi bëri ñu ko réglé fekkee jubóobu sa borom sa goro wala jubóobu ak keneen ci kër gi boo amee problème sa jëkkër da ngeen di rayante wala tas lay mujj du ngeen am ku ko arrangé conseil mag ñi dañ cee baax dañ ci war a toog di ci wax ngay toog di déglu seen conseil ndax euh, ñoom duñ fi yàgg duñ fi continuer éternellement te yaakaar naa ku sa borom gërëmul keneen ku la gërëm lañ mhm. mi ngi wax lu ko neex man ma dem lan ngay wax am na jigéen ñoo xamante ne dañuy sëy ci kër ñu mhm. am seen borom kër dem doom mhm. am na ñoo xamante ni seen doomu jigéen moo koy def am na ñoo xamante ni seen doomu jil la moom moo koy def ndax da ngay gis ku ñëw indaale doomu bu jigéen mu mel la mu war mu takk yaay ji mais bu bu ñëwee mi ngi xool bët yi muy xool yaay ji mi ngi koy xool doom ji est-ce rafet na góor di ko def waa loolu moom du du wax sax question rafet ak euh, lii ñaaw ci bon la nekk. ndaxte dafa am loo xam ne fas bi nga xam ne bàyyi ma la. muy fas nga xam ne dañ koy takk sareet. mënul wax mënul def dara. du sëy sax ak waajuram. fas boo gis mu sëy ak waajuram. day dee. rawatina yow doomu aadama yàlla bëgg la sopp la ne li mu bind yépp yow yaa ko ci gënal nga bëgg a xam yaay bëgg xam doom. doom ji nag mooy am fulla ak dignité xam ne yaay du moroom ñaareel ba yow góor gi soo bonee sa bonu bokk man xale bi ma am sama fulla ak sama dignité gis nga ndeyaa ñetti tàccu jigéen xaju ci góor te gis nga kanam du kaso mais koo ko tëjal mu xam ko tey góor bu ñëwee si yow am na nu muy dikkee di nga xam ne kii fullaa ko indi wala fayda wala yëfi ñàkk fayda moo ko indi ñëw nga ci man baaxal sama papa jiitle nga soo baaxee yenn baax yi dinaa xam ne yow dangaa baax te yàlla tax mais am na noo xam ne soo ma ko bëggee xoolee wala nga bëgg ma kaa defee benn lay doon du ñaar ndax man dafa am loo xam ne ay signe la yu lay def dañ naan message dafa am yoo xam ne signe yoo xam ne soo ko gisee ci góor rek war ngaa xam ne waaw kii bët bii mu ma xool bët bu baax la wala bët bu bon la am na yoo xam ne duma ko nangu benn du ma wéet yow ci néeg ndax benn sama waajur nga am na ci yoo xam ne ni duma ko sol di la romb ndax damay xam ne nit nit dong la mën a doon mais euh, tamit nga nekk sa waajur bu góor koo xam ne juru la te góor la daan ax ah, moo mooy loolu xam nga góor ñi moom yaa ma gën a xam amal yére yi ngay sol xamal ni ngay defee ak moom dawalal kersa sa diggante yow ak moom def ci barrage soo koy nuyu su la neexee sax bu ko jox loo xam nga santam jaara ci santam mm-hmm. nga sukk nuyu ko nga dem bu nangu sax sa loxo ak loxoom di laalante mm-hmm. jox ko cër bi nga ko war a jox mais góor moo mel noo xam ne dama yàlla baal te jéggal ma mm-hmm. dafa xaw a doy waar su gisee lu mu bëgg fitu gaynde lay yore su paree gàccaam dikkal ko xam nga kon nit lu loo mën a gis lu mu mën a mel jàppal ne lii lu dagan la ci man lii lu araam la ci man ndax sa doomu jilli bi nga xam ne yaayam da ko indi ci biir kër gi soo xool ko comme sa doom bul ko jéem a def dara na rafet ba mel ne per yow bëggoo ko yaayam nga bëggoon ba takk ko kon doom ji sa doom la yamal ko xoole ko bëtu doom ak nu mu a wax euh, man na solo yow muy jigéen bi yaa war a daw parce que comme góor ni ko waxee nee nañ góor loolu xelam lu mu lu nekk ci rek moo nekk ci te bu ko deful lu am jàmm xamante ne yaay jigéen yow yaa war a jël a a moytu comme maam ma dem ni ko waxee nga bañ a duggoo bañ ñuuxoo ndax sa papa ni mel ci yow keneen ku la juru ku nekku sa papa mhm. mënul mel mel mën noonu ci yow comme ni ñu ko waxee rek doom yaay benn la papa benn la mhm. beneen bu ci tegu rek li ci war a am bu ci amee rek nga xamante ni maanaam affection papa ak doom moo duggul ndax bu doon sa papa du ko doxalee noonu mhm. mais man gis naa jigéen boo xamante ni borom këram sekk na ak doomam doomam nga xam ne moom moo ko indaale mu sëy si mu jëmu jiit la mu koy nës nësal pour bëgg dëgg téye sayam est-ce que loolu normal la <laughs> a dëgg la ndey lépp am ci mim réew mm-hmm. <laughs> jamono bi ñu toll nii mm-hmm. lépp am di nga gis eh, yaay yoo xam ne mm-hmm. sëbi sëyam day tax mu tay la doomam ndaxte danaan su ma waxee lii tey ñu ne la mu wax wala la mu nàngam jéeg sëy na ci kër indaale fa doomam jarbaatu jëkkëram violé ko wala magu jëkkëram egg ci doomam mu nëpp nëppal ko gis nga nëpp nëppal boobu nga ko nëpp nëppal pour sa sëy ëllëg loolu nga sa doom ndax mun naa am jëkkër jëkkëram ñëw ci moom ne ko am na sa ndaw lu mu koy wax sama bu boobaa wax bala nga doon bës mun nga ci am lu gën a metti loolu ndax ci bees bees bi gis nga loo loo faj ci bees bees bi xëy na bu ëllëgatee du metti mais gis nga sa tànk bu fa xajee nga bàyyi ko ni ko nëpp nëppal bis bu ñu ko waree bës dam sax mun na caa am yoom man góor du ma gënal sama doom damay sëy yow miy góor nga tëddee sama doom dama la yóbbu ca yoon bu yeboo na nekk benn rumeur bi sama doom deram set bu ëllëgatee su amee jëkkër wala jëkkër da koy takk xam ne kii kat am na lu nekk ci moom mais nëpp nëppal bi moo doy waar nëbb dafa am loo xam ne nii lu dul dëgg du yàgg lu yàgg ndax tey xale bi nga xam ne yow magum jëmm nga nax nga ko ba xamal ko loo loo xam ne xamu ko woon conséquence yi ci nekk moo bari mun mm-hmm. na saa jaaree mm-hmm. topp ko di ko wuti ji mm-hmm. du ko wuti ci yaw de mais mun na koo topp ji di ko wuti ji ci beneen góor mun na cee ëmb ndax fii am na fi ñoo xam ne doom ya ñuy ngénte juruñu leen nit a ngi ngénte doom joo xam ne juru ko juraalewu ko moo xam jabaram nekk ci biir kër gi di farantu di taxawaalu muy ngénte defe ne moo jur fekk jurul nit a ngi ngénte doom xam ne juru ko ndax nit dina ëmb ka ko ëmbal sës ci moom wala ñu rus koo wax ñu dem jiñ ko beneen waaye waa jooju danaan ñëw ci kër gi doxaan si ñu koy dàq mais su ñëwee dañ naan ko yàlla ci biir néeg bi duggal waaw xam nga defal lii bu ko defee ndaw si fexe ndax dafa am lu mu bëgg gis nga loolu noonu amul benn sens nañuy bàyyi suñu xel bu baax a baax sëy dëgg la sëy jaamu yàlla la mais tamit nag yow su dee rusul tàgg du rus nda yaa gis nga dee su rusul tàgge waxta rus de kon yow bu fekkee li ngay def rusoo ko man la may def man tamit duma ko rus mais doo jël sama doom def ko la neex ba pare ëlbatikuwaat ma di ko nëpp nëppal su dee comme ay xale yu ndaw léegi langam nga def dinaa ñëw ba sa yaay man la sa doom de gis naa ko muy def nangam ak nangam na nga fexe ba nanga ko yedde bis bu nàngam amee du maag moom moom ak yoon la ndax ku jàdd yoon yoon teg la ci yoon te ku say yaay ak sa papa yaru ci biir kër gi soo génnee yoon yar la nday yaar boo génnee métti bi yàlla mhm. comme ni nga ko waxee rek am na solo ndax yaakaar naa ni jigéen bu nekk mhm. sa sa borom kër waru la gën a sa doom mhm. ndax doom mooy mbokk te doom res la doom nawle la bul bañ a su ma dénoncé sama borom kër naa nga mën naa nga damay ragal tas wala dara sëy dagan na tas dagan na te yàlla suñu borom li mu bind ci yow allah kulli aal da koy am comme nañ xoolaat bu baax bàyyi nëpp nëppal bi nës mhm. nësal bi ndax boo loree sa doom loolu sa njaboot rek sa bopp nga lool mhm. ndax doom mënoo koo mhm. bàyyi sa doom sa doom mën la bàyyi sa jëkkër mën na la bàyyi sa soxna mën na la bàyyi mais sa doom mënu la bàyyi sa sœur mënu la bàyyi sa yaay mënu la bàyyi sa papa mënu na bàyyi kon nañ ci bàyyi xel bu baax te xam ne ñoom ñooy trésor boo xam ne moo gën a précieux ci nit ki li nga xamante moom la nit lay am nit ki moom lay am kon ñun jigéen ñi suñu doom bu bu ñu ko kenn gënal nañu fonk suñu njaboot bu baax parce que ñoom rek nañu ñu am man ma ne gis nañu jigéen ñu yoo xamante ni seen doom day takk jabar indi ko ci kër gi mm-hmm. mais duñ ko mën a accepté benn yoon mm-hmm. te damay ñu naan sa doom boo bëggee sa doom rek war koo bëgg le mm-hmm. si sikka ko mën a supporté problème guddi problème bëccëg sonal leen fàttali leen duñ leen may jàmm duñ leen may salal lan ngay wax goro yooyu waa nday loolu li ko ëmb dafa bari parensaay nit euh, doom takk jabar indi ko ci yaayam yaayam bañ ko day fekk yaayam bëggoon a may doomam turandoom ne ko sama turandoo nangam demal nga takk ji ko mu ne ko yaay man bëgguma kooku bu ko defee ku takk indi ko danaa naa ko sonal ndax bu tasee mu mën a dem ci sama turandoo ba ñaareel ba am na ci meer yoo xam ne dañuy topp ay fam ay lii nuñ ko ci ay xeet mm. kii lii la kee lee la kon man du sama doom du sëyeeg nangam am na ñoo xam ne loolu lañ ciy topp ba boo takkee kooku indi ko ci kër gi ñu ne dañ koy mbugal pour mu génn kër gi beneen bi ci des mag mi day dañ ne mag day toog ci suuf di gis lu sori xale toog ci kaw te du gis loolu tamit da ciy am pare saa ngay dem di takk ji yaay ne la ah doom su ma sañoon de nga bàyyi fi ñooñu te dem takk ji keneen day fekk boobu am na lu mu ci gis moo tax loolu li ko ëmb tout le temps dafa bari bu fekkee na yow doom nga nga bëgg takk sa yaay ne la su ma sañoon doo takk diw diw ngay takk mm-hmm. nee ko loolu am na am na ci droit ne ko yaay man kii bëgguma ko mm-hmm. ndax nit takk na fi jabar mm-hmm. ne sa wax ah, kii daal sama yaay taxoon ma takk ko xam nga bëgguma ko waaw damay takk sama bopp ndax dañ la jabar ñett la ki nga takk ki nga bëgg ak ki la bëggal ak ki la bëggal boppam kon jabar ñett la day tax de su fekkente ne danga ne ma demal takk ji diw naa ne la yaay su ma sañoon nga fexe bàyyi ma dem xoole ko ma bëgg ndax bëgguma takk doomu jàmbur teg ko fii dem di doxaan si wala ma teg ko tamit muy sonn fii di xalaat ba sonn bàyyi ma dem xool ko ma bëgg nga naxanteeg sa yaay ci ko dem xam nga ko de boobu naxante ci yomb na ndax mag lu ko nax yomb na mais bu fekkente ne daf ne la kat su ma sañoon bu dugg foofu nga laaj ko mun la ah su ma sañoon daal doo fa dugg xoolu ci benn intérêt lalu ci benn intérêt yu mel noonu mun nga bàyyi ndax xëy na moom mag la yàgg na ci àdduna xam na ci foofu loo xamul wala gis na fa loo xam ne xamoo ko mais bu fekkee bu takk diw takkal diw la loolu naxanteel ak moom ndax boo takkee diw moomu jabaru yaay nga koy def boo takkee keneen sa jabaru bopp nga koy def kon loolu mooy tax ñu naan diw dafa takk ñaari jabar te yamalewu leen fekk na ki nga dugal sa xol ki yaa ko bëggal sa bopp kii da nga koo bëgg ndax sa yaay kon ñaari jabar yooyu day am différence yow na ngay mel ci kee doo ko mel ci kële mère bi nag du xam loolu kee tamit bu ñëwee day daal di sis ci gorom ndax danaa man sama gorom dafa maa bëgg kon damay sëy ndax sama gorom kooku tout le temps gorom lay sëyal mais ki nga xam te ne waa ji moo ko bëggal boppam tout le temps kooku dina sëy ak gorom mais day sëy jëkkër maanaam moom day am euh, bénéfice bu bëri maanaam li koy fekk ci sëy mooy bàyyi kon nit ki <laughs> mais ngir ngir ngir gorom est-ce ci borom këram parce que dina nga lu mbëggeel dafa xam nit koo bëggu rek mënoo bokk ak la mhm. des fois nga gis góor gi comme ni nga ko expliqué yaayam forcé ko mu takk soxna mhm. mais soxna boobu ñoom ñaar du nekk ci jàmm du am affection ci moom mhm. loolu est ce que ne ñoo bu ñu sëyee sëy boobu mën a neex a nangu sa ci ki boo ko bëggee nu mel tamit loolu jéewu ci tamit parents yi ñuy forcé seen doom di leen may may doom di leen dëgg la euh, loolu da ci gisee bu baax a baax su fekkente ne góor gi. góor gu am dal la góor gu ñu yar la góor gu xam àdduna du feeñ. dana naxanteeg jabaram ndax cofeel ga ni am ci yaayam. Mm. donte ka bëggul jabaram bu baax mais dana ko bëgg par force ci dina fexe ba li mu warloo ak moom tout le temps mu koy def moom nag bu wéetee. ndax ñeenti jabar yi nga xam ne yaa leen tànn sa bopp. takk leen sax am na ci koo xam ne moom nga gën a nopp. Mm. mais doo ko wane mais bu dee góor gu xam àdduna la góor gu muus. kee du xam ne man nëbbuñu ma xam lu ma la dina moom a def ak moom dina ko def mais na muy mel ci keneen ka tout le temps du ñoo xam ne dañoo xaw a mel noo xam ne luy da nga koy daal di xam léegi la gën a nopp da lay toogal moom lay àndal moom lay fotowal moom lay defal lépp kon kee day daal di feeñ mais am na ñoo xam dañoo muus nag yow doo fexe ba xam ni kii la gën a nopp wala kee la gën ta nopp ndax lan tout temps dañuy wax ne man sama yaay lu mu bëgg bëgg naa ko comme sama yaay moo ma ko forcé naa fexe ba bëgg ko rusee ko sama jëmmi yaay ndaxte góor euh, nekk na ci kër yaayam gaañu jabaram def ko lu ko naqari lool mu am lu ko naqari mais danaan ko kii de bëgg naa ko fase mais sama yaay a tax mënu ma koo fase ndax sama yaay ba muy gaañu dane ma dénk naa la ko nag mu ko téyal bu ko mës a bàyyi mu dem kon kooku lu mu la mën a def di ko mere nag moom di nga moom dina xam ne yow sa xol neexu ci moom mais di ko téye ngir sa jëmmi yaay yaa waaw maam Marème loolu metti na de ndax mhm. loolu moom wax dëgg yàlla yaakaar naa sa doom rek mhm. ko mhm. naa bëgg léppam oyof ay mbiram lu mu dub ma da nga koy bàyyi mu bëgg mu dem tànn bëgg ki mu bëggal boppam yow mi waajur aussi tamit nga ànd ci ak moom xam ne xol koy bës mais nga jël sa doomu doomu nijaay wala doomu bàjjen war ni ko kii sa mbokk la takk ko nangam a nangam soo yooyu toujours dañuy gis ni maanaam euh, tas bi rek du gaaw parce que ba na lay yàqu mbokk yi ñoo jàpp mais ki nga maye en général ku ki moo nekk nga xamante ni moom moo mbëkk mii moom du dund mukk bànneex mhm. yow yaa ngi koy a des ci xamante ni koo xamul la sama yaay lu mu bëgg laa bëgg lu mhm. a lor seen bopp di ànd ak koo ko dañ ko jàpp ngir seen yaay nit ki booy ànd da ànd ki nga xamante ni yaa ko bëggal sa bopp mu bëggal la boppam mhm. yaakaar naa bu ngeen bëggante yéen ñaar sëy boobu dafay neex te njaboot ngeen ci am ay trésor la ñuy doon ndax ni ngeen koy ni ngeen koy amee moo tax ci bànneex lay juddu mais tamit jël ay euh, jigéen forcé ko nit moom it mu dem ngir nangu loolu man pour man jigéen ñi ñoom ñooy nangu loolu ñoom ñoo war a bañ loolu waroon nangu rek ñu ni sa doomu mbokk am na lii am na situation ñu jël la bëgg la bu wax moom nga bañ ko nangu bu leen ko nangu uh-huh. da xool bu baax fi ngeen dugg ak ñi ngeen di bëgg maam rek ñu gis jigéen ñoo xamante ni dañuy nekk ci kër uh-huh. comme ça tey bu kenn xuloo keneen ki keneen ñëw wàll yaan si mhm. ñuy ñuy def ay clan mhm. maanaam wàlli ba ñee daal comme man mhm. xuloon naa man a ma a yow bokk kër ma xuloo ak yow sama beneen njëkke wala sama beneen mu ñëw tamit ànd ak yow wala mu ànd ak man su ko defee léegi kër gi ñu diviser ko nag ñii fii ñii fii lan ngay wax ci jigéen yooyu loolu du loolu si bëri du nekk si jigéen ñi day nekk si góor ña góor ñaa dul mat ndaxte góor bu matee nekk ci kër nekk fa responsable ba war a mën a dajalee jabar wala nga mën a dajale jigéen ñu bari ci benn kër war ngaa mën a am respect bu tool ne wala fulla ju tool ne ak caractère bu mel ne mhm. di nga taaj ñëpp ne leen fii kër gi benn bopp fi nekk mhm. amul xuloo amul xeex ku xuloo mbaa ko xeex yaay génn kër gi mhm. kon bu ñu defee noonu bu waaye borom kër yi matee dëgg dëgg dëgg histoire boobu du fa bari mais kër yoo gis en général ñuy xuloo di xeex njëkk yi fii wujji peccorgo yi jéggi ci kër gi di rayante rek lu si bëri góor ñi amuñu fulla te meer ba ca kër ga toog tamit am na moom tamit day am ñu muy farfarloo mhm. mais su fekkee dafa yemale ñëpp ku tooñ mun la yow yaa tooñ ëllëgee bu defati nangam su góor ñi ñëwee ñu lijjanti ko benn yoon lay doon dootul amati mhm. mais bu fekkente ne bu coow amee kii far fii kee far fii sa jabar ñëw ci yow yow da diw nangam diw nangam nga ne ko waaw ba ko foofu nangam ak sàngam boo xëyee di ko nuyoo bakkan kon loolu mooy continuer ci kër ga mais bu fekkee sa jabar daa ñëw ne la waaw diw nangam nga ne ko yee loolu bu mu fi amati loolu xajul ci kër gi gis nga kër gi benn bopp la amul werante amul jaar fii amul jaar fële mm. fii ñëpp a bokk xale da bu ko defee xale dañuy bokk ndey ak baay xale ñu xool ci seen yaay di ñuy def loolu mm. ñoom tamit ñu koy def mm. kër gi dafay neex góor ñi duñu tàqali ko mm-hmm. mais ndeyaa gis kër goo gis jigéen ñi wujj peccor ba nekk ca kër ga ñii di jaar ne ñii di jaar jàppal na lu mu yàgg-yàgg seen jëkkër la ñuy tasaaroo mm-hmm. lu mu yàgg-yàgg góor ñi dañuy tas di nga ci gis koo xam ne day dem luye ji génn kër ga mbaa nga si koo xam ne day tabax këram profité génn naan man damaa yàkkamti woon a génn fii nangam nangam ba fa sa yaay mm-hmm. ndax lan jabar yaay tax ñoo ngay rayante xeex bi fii soo demee xëy ñu lay woo kër gaa ngay tas mm-hmm. jigéen ñaa ngi fa nekk def lii loolu yéen ñi da nekk ci kër gi yéen a fay sëy benn ngeen seen yoon nekku ci dara ñu xëy jox leen ngeen togg ba mu neex bu xew amee ngeen sañse mais nekk leen ci kër gi nekk jàmm añ leen ba pare teg leen seen attaaya kaf leen ree waxtaan leen nii kii far farfee kee farfee tey ki ngay faral su kan ka ngay xeex tey bu fa génnoon yéen ñaar ñi nga xam ne yéen a far yéen yéen xeex mhm.

nangu uh-huh. mais bu boobaa duñ ko teg ci kaw uh-huh. parce jëkkëram li ñee mën comme mënuñu ko rek moom lañ luñ jot moom lañ koy teg moom la ñuy moom moom la ñuy lu bon lu ne moom lañ koy wax duñ ko may jàmm lañ koy xatal uh-huh. moom la gën a sonal est-ce que loolu tamit euh, normal na dëgg la ndey paren saa yi am ñoo xam ne dañuy xool ci am am ba duñu xool ci leneen mais gis nga man boo ma xeebee ma naw sama bopp soo ma xeebee pour lan ci sama ñàkk man ma yow yéeg sa digg bopp ndax olof nee na koo xeeb mu yeb la parfois yaay ju la jur da gis naa ñoo xam ne seen yaay moo kooku du yaay ju baax gis nga yaay ju baax du gënale ay doomam yaay ju baax du jël ki am teg ci kaw ki amul ndax yow ji mënuloo sa doom yépp lépp yàlla mooy yor jaboot mais kii am na nga jël ki amul teg ci kawam comme yow xooloo njureel nga xooloo bëgg ba xam nga nga xool intérêt ba nga xool kon gis nga yaay joo gis muy gënale ay doomam kooku jàkkul ne bis ne dina bàyyi jëkkëram dem toppi ko am ndax gis nga am am du dara gis nga euh, cofeelu doom ci yaay dara gënu koo gis nga sa doom ji gën a ñàkk sax moom nga war a gën a am yërmaande di wax seen ay magam wala ay rakkam dimbali leen seen rakk ji wala jàppale leen seen rakk ndax dafa néew doole ndax yàllaa bind te tolloolewul ñu koy jàppale wala pare saa ñoom ci seen bopp nga leen di wax jox leen ma ñu lay jox nga dem di jox kooku pour dimbali ko pour mu bañ a feeñ ndax kër mag moo koy defar kër dañ koy defar kër dañ koy wodd kër sutura dafay am gis nga boo say doom yu bari ku am ak ki amul bu ko kenn xàmmee am na mag ñoo xam ne tey ñu ngi ci kër nday yaag jeeg dafa nekk xamuñu kuy joxe dépense xam nga luñu am bu ñu xëyee ñu seen goro jox leen dépense ñu dem ndax goro ba xam nga tax muy bañ loolu fekkul ne dafa ñëw jël xaalis bi téye ko de day bañ ëllëg kii naan sama jëkkër mu ëppale lii sama jëkkër mu ëppale wala dépense bi di am différence waaw day tax moom ku daan leen ku ci nekk bu weer deewee yow yaay fay ndox kii mooy fay courant kii mooy fay mburu bi kii mooy def nangam yow bu weer deewee yëkkatil nangam nga jox ma mooy nekk dépense su kër gi ba weer bi jeex tout le temps ku ñëw dalay jox yow nag la nga am sa jëkkër may la ko sa weccet su yaa xam su la neexee nga mottali sa dépense loolu day tax kër gi day nekk benn kenn du xam ki am ak ki amul mais bu fekkente ne ni yow dangaa jël say njaboot jur leen rek tasaaru ñu mel ne kaas bu toj kii jaar fee kee jaar fee sa kër bu tasee yaa yow yaa ko def kon njaboot da ngay ëmb say kër da ngay defar sa doom da ngay euh, mm. ko mm, mm-hmm. sa njaboot boole leen ñu nekk benn a tasaaroo benn yoon mm-hmm. comme ni ma leen waxee ni nga ko waxee dëgg la parce que yaakaar naa sa njaboot bu tasaaroo wee rek heure boobu bu yàlla suñu borom defee yàlla tere yàlla te nga génn àdduna rek boo tëddee sa bàmmeel doo tàlli mm-hmm. parce sa njaboot ñi ngi jaxasoo fii ñi ngi fi ñi ngi fi yaakaar naa jigéen bu nekk ndax jigéen mooy defar kër jigéen laay wax. Mhm. yaay ñun yaay yi ñoo war a boole seen doom ñu nekk benn muy seen doomi góor yi ni seen doomi jigéen ñoom ñoo mhm. leen war a boole ñu nekk benn su réew kenn bañ a seen diggante ndax ñoom li ñuy bokk bokk nañ ko pare ñi ñëw sëy sa ay jaambur lañ ay wàllu yàlla lañ dafay neex ñu toog mu metti ñoom ñu dem te bu ñu demee yéen yéen ay des. kon jar na bu baax ñu bàyyi ci xel te xam ne àdduna amul solo. jigéen bu mu tax nga yàq euh, nga dàqalikoo ak sa famille bu mu tax nga dàqalikoo ak sa yaay bu mu tax nga dàqalikoo kenn ku je ku ku la jege parce que àdduna dafa gudd tànk ëllëg boo jaaxlee sa mbokk rek ngay gis. maam Marème comme ni ko waxee yaakaar moo nekk biir kër fi jóge. dëgg la ndax am na yeneen point yoo xamante ni laalaguñ ko. Mm-hmm. demuñu mm-hmm. njëkk yi nga xamante ni dañoo sëy ba jógewaat seen sëy ñoo seen biir kër yi mm-hmm. ñëwaat toog mais yaakaar naa ne comme ñun ñaar moom si ñun sodaluñ kenn ñun ñëpp la noppal ku def uh-huh. nu ñun da yaakaar naa kër yi dina neex uh-huh. ñun sodaluñ kenn lu ñu am jox la buñ la mënee dimbali dimbali la ñun neex nañoo topp amuñu benn problème parce que dañuy xool loo xamante ni bëgguñu ñu teg ñu ko ñun duñ a teg kenn ma ciy jaar sama belle-sœur yi bu baax muy uh-huh. Ndey Sall ak euh, Kiné ñoom dañoo baax wax dëgg yàlla amaa ñoom benn problème dama ñëw nag nekk ak ñoom benn te yaakaar naa ëllëg ñaan naa yàlla man tamit feneen fu ma dem ma fa jàmm ñu yaatal ma kon nit ki looy def lu ne rek xool ko sa bopp ba pare buñ ko tegee nga nangoo ko tegoo rek mën nga ko teg nekk sa morom. Mhm. maanaam nag ñu bàyyi la nga ñëw ci solution yi comme que waxtu bi li ñu dese bareetul. Mhm. waa Ndeye li nga wax am na solo bu baax a baax a baax. ndax doomu aadama bi bëgg boo natt te jotu la rek bu ko nattal sam nawle yow miy sëy si ci kër gi di sama jabaru càmmiñ dama lay may jàmm sama yoon nekku ci yaw dund sa dund ba mu neex mhm. soo amee loo ma war a jox sax man la séeri ko jox ko xale yi mhm. ndax jamono neexul te sama xam naa ne loxoom jotul ginnaawam fattuma la ci dara sonaluma la ci dara su ma la mënee baleel baleel la su ma la mënee fobeereel fobeereel la su ma xam xoolee ba xam ne tey jikka sonn nga mhm. man la demal ndugg ñëw ma toggal la du ma jël sax sa dépense dama la demal ndugg ñëw ma toggal la soo ñëw ma toggal la ba mu neex tegal la ndax ki bàyyi yaayam ak papam ñëw sëy ak sa càmmiñ te sa càmmiñ am lu ko manqué mm. kon kooku war nga kaa jàppale ci benn côté bi ndax loolu leble rek boo génne dañ la koy fay suñ la ko fayul sa jëm yow fay ko sa doom ëllëg mm. kon képp koo xamante ni yaa ngi nekk ak sa jabaru càmmiñ rek mm. muy sëy ci biir kër gi rek jàppale ko may nuyu waale Fatou chéri Ousmane Ndiaye yaayu maam Marème mu nekk ca mbaan bi lool muy sama xarit sama séeri ñu ko doon génte bu yàggoon rek yaayu bébé ay da maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram kooku sama séeri la di sama jabaru mag di ku baax loolu faatu boolewul daraa ci wax ne pat rek wax dëgg yàlla seeg sama càmmiñ ba mu jeex taase car macha allah sa mbubu baa ne mbubu bu rafet la ma jox mbubu boo xam ne car macha allah seet ba bëgg a dee te teguma ko ko woon wax dëgg yàlla muy ku baax lool muñ gi rek dafa neex ki ci des muy Anta Diallo chéri eh, bi ñu ko ci waxee sax eh, chéri Anta maa ngi koy nuyu bu baax a baax maa chéri sama xol kooku moom maa ko tippoo Ndeye Dieng maa ngi koy nuyu bu baax chéri Ibou chéri Aliou maa ngi leen di ziyaare xam soo amee ay jabar yu baax boo toogee fii ñu lay seetaan rek il faut leen di bégee di bu baax a baax a baax képp koo xamante ne sama chéri rek maa ngi lay nuyu di la ziyaare di la ñaanal jàmm màggat tamit maa ngi koy nuyu sama ñaari màggat yooyu aram bàyyiwuma kenn su ma limee rek il faut ma am ma ma bàyyi ndax man ñi ma yor ñëpp a baax waxuma la joxe gi mais mais reetaan geeg kaf gi bu ñu la vocalé rek la ñuy tooñante yow la ñuy kafante yow soo ñëwee ñëw ñëw toppatoo la andi ndékkili daanaka soo demee sa kër yaay sax doo mën a waxtaan ak sa yaay lu bari ndax ñoom ñu lay teg fii kaay nii kaay nangam kaf beeg ree bi kon képp koo xam ne ni yaa ngi sëy rek yal na la yàlla may ndam ci barke Seydina Muhammad yàlla defal leen bu baax solution yi nag paasewul ndey yaa muñalante xam àdduna xam àdduna gi mooy ku ci nekk li nga natt ci sa bopp rek nattal ko sa morom loo xool ci sa morom mu metti xool ko ci sa bopp xam nga ñu comprendrante muñalante déggante ku nekk jàppee sa morom sa jikko man su ma jëlee sama jikko ma jàppee ko ndeyaa day neex ndeyaa tamit su ma jàppee jikkoom day neex mais su ma xoolee man ci sama jëmm man day wax mi daal mooy loolu nangam ak sàngam ndax tey mun naa naa laa def la neex suba ma defal la naqari kër nag noonu la mënoo dëkk ci kër bis bu nekk rek muy neex day neex tey suba mu naqari kon su naqaree jëlal ci bis bu mu neexoon su mettee jëlal ci bi kon noonu la ñuy muñalantee ci kër yi di fexe nag kër yi yàlla di ci def sutura di ci def jàmm di ci def salaam ndax loolu rek mooy solution bi ndey jàmm ak sutura rek mooy solution bi ndey waaw maama de ñoom am na solo jàmm ak sutura mooy solution bi mooy comme ni nga ko waxee tamit ñu ñu yaatal xol yi ñu ñu ñuy rafetal di maslaa comme ni nga ko waxee loo xool ci sa bopp rek boo ko natee li lii kat bu ko solee lu baax baaxul ci yow bu ko mayee jël ko nga rënk ko wala nga xam ne neen noo ko demee bu ko may ndax keneen koo ko may bu ko solee comme ni mu mel ci yow noonu lay mel ci yow te yaakaar naa ko jàppee rek noonu la lay delloo même say njëkk yooyu ngay wax noonu leen di leen gërëm man may gërëm samay ay belle sœur bu baax mais ni ñu ni jàppee ci yow la mhm. parce que yaa leen yaatal soo leen mhm. yaatalee bëgg la ba pare en plus ñoom ñu mhm. la bëgg yow ku bëgg sa càmmiñ sa càmmiñ yaakaar naa bu ñu bëggee seen borom kër yi dinañ fonk seen njëkk yi fonk seen goro yi xam ni ñoom rek nañu am mënuñu dem saa ñoom wax dëgg yàlla kër nekk nekk en famille dafa nekk benn waxtaan fii xal-xali rée parce que ñun ñëpp ay morom lañ sunu belle sœur yi ñu ñoom ñoom ay morom la man bu may sol ñoom uh-huh. uh-huh. <laughs> gis nga ñëw nga kër ga xam gis nga ni ma mel ak ñoom uh-huh. dama ñëw maa ngi leen jàpp parce que ñoom ma sonal leen parce que bañu ma ëllëg bëgguma ëllëg feneen fu ma dem ñu sonal kon jàmm rek laa leen di yéene di ñaanal yàlla seen borom yi seen borom kër yi yàlla sunu borom yokk seen xéewal sutura xéewal saawaan baawaan yàlla képp ku sëy rek yàlla na la yàlla may ndam ci sa biir néegu sëy ndax yaakaar naa ne nañ xare la mhm. guerre la fe fekk bi jeexul rek ba nga remporté victoire rek amagoo ndam te mhm. fekk sëy bi jeexagul rek amagoo ndam mhm. kon chaque jour rek bés la te nañ ciy bàyyi xel bu baax di def lu baax ma am rek ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw damay tàggatoo mais nag wax dëgg yàlla su ma jógee fii tey te nuyuwuma awa Sëriñ Seex Tuubaa si aw nga xam te ne daf maa bàyyi ak jëkkëram rek nday xam nga li gën a neex mm-hmm. jeeg du sëy si ci kër ba pare génn ci diggante jëkkëram ak ay mbokkam mm-hmm. xam nga jeeg dina sëy si ci kër te lijjanti mm-hmm. soo waxee ak sa rakk mu mu woo ko ne ko yow la doon wax ak sa mag ji lan nga doon wax sa yaay mais awa nekk awa ndaw maa koy nuyu bu baax di ko ziyaar di ko ñaanal yal na la yàlla may omi seeddu guyi ba ñu làngal la foofu ci caaroy su boobaa nga xam ne boroom kànjaay mën a maafe di ku baax bëgg sama yaay may mun a barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke awa dafa bëgg sama yaay fu mu tiktokee bëgg sama wetu yaay mu ngi koy fuddan mu ngi koy létt seex tamit nekk rakk ju baax ci man lool ngay moolum géej mm-hmm. su fekkoonte nattu day nekk lu ñuy gis du ko dékku ngay mm-hmm. moolum géej sa loxo yooyu du daggee lu ba barke Seydina Muhammad ndax ñëw ci man pour seet si ma rek defal ma lu baax mm-hmm. moo tax nga ñëw fi ba ndogal fekk la fi seex maa ngi lay masawu ndaxte dafa metti ji xale bu góor bu ndaw ñëw seet sa rakk sa mag rek te yàlla rek tax ba yàlla teg la fanatu Cheikh mm-hmm. maa ngi lay ma saw bu baax a baax a baax ndax góor bu tollu foofu mm-hmm. war a dem liggéey ji jàdd di seet sa mag mm-hmm. ba yàlla teg la fanatu te sa jabar mu ngi toll diggante kon maa ngi lay ma saw bu baax a baax a baax ngay moolum jéeb yow nee naa la doo sama rak sama doom nga waaye awa yow tamit yal la yàlla bàyyeeg sama yaay yàlla defal la jàmm ba nga ay wujju peccor ga yu baree baree bari fekk la fi awa ndaw ku baax nga ku nangu nga dangaa toog rek di xaar dara nekku fi nekku fa fa nga toog dara ñëw fa da nga faa toog rek te yàlla tax mais nag yàlla nañu yàlla defal jàmm ba yàlla may la bis bu sedd su boobaa su boobaa rek nga xam ne borom kànjaa mën a maafe ndaw Kounda maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax mais nag nga yaa nag émission bi neex na maa ngi am mbégte kontaan teew fii nga xam ne mooy leeral TV leeral point net émission aada ak cosaan ñu koy def dimanche bu jot. tonton Ngari manqué nga ñu tey murid manqué nga ñu waaw gis nga bu baax a baax mais mm-hmm. ñu ngi sant yàlla bu baax mm-hmm. ëllëg mu ngi fi beneen jour mu ngi fi ñu leen di jox rendez jàmm di ñaan yàlla yàlla def jàmm Sénégal yàlla yàlla fëgg bopp maladie mm-hmm. suñu waaye dawlu yàlla yàlla xaar leen àjjana oyofal suuf seen kaw ci barke Seydina Muhammad ñu yàlla yóbbu seen xel tamit bu ñu dajee dara lu leen di lot ci barke alxuraanu karim ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal góor ñi yàlla yàlla may leen alal may leen sutura bu ñu yoree soxna yi ci barke yonent naa ñëpp ñaanal naa ñaan jàmm yal na yàlla defal ñëpp jàmm ci bàyyi ko Seydina xam ma leen di jox ba dimanche ci leeral TV leeral bi nekk leen si jàmm merci Ndeye Yaa. amiin amiin yàlla ko yàlla def yàlla boole ñu ko ñun ko. Mhm. yàlla defal ñu xéewal sutura ak euh, xéewal saawaan ba comme ni ko waxee sa frère boobu ñu ngi koy masawu. Mhm. Euh, ndogal moo mel noonu parce que yaa xalaatul woon ni buy ñëw loolu dina ko fi dal. kon loolu yàlla na ko yàlla suñu borom saafara yëkkati ko soxnaam boobu yàlla may ko omisee dugg yi ba mu gesturee yàlla yombal lépp may ko lu may ko lu mu yoree soxnaam may ko a yor seen soxna yaakaar naa yàlla suñu borom jàmm xel ndax naa boo wéree rek yàlla suñu borom may la jàmm rek tànk boo seet rek na la ci dimbali ma ci ziar aussi sama yaay bi nekk ma moom Thiès maman mm-hmm. Mbaye Fall dëkk dem laa dem Thiès mu defal ma ay teraanga jox ma ay tusi rafet ni ma ñaw ko soo demee nga koy defee

Aminata Gaye dal ndeyloo sama mag sama xarit sama euh, mag aussi Fatima madame Ndiaye chéri fili moom it noonu la baaxee ma nga ba daaru mu si xam naa fan yi dinaa fa ñëw seet si la borom baax la moom it daf maa bëgg fii la ma def mhm. maa ngi ziar ñëpp lii ñëpp kon nag mbokki xarit loolu moo nekkoon euh, li ngeen indi loolu dañ dox di daje beneen dimanche incha allah fii ci Leral TV ci pencum aada ak cosaan incha allah ñu ngi jox di daje beneen yoon